man de dama fi jóge dem Arabie Saoudite mais bi may dem waa ji waxuma woon li am ndax daf ma ne woon benn waa ji Souleymane la tudd ndax Souleymane dafa yóbbu na sama rakk sama rakk mi ngi foofu noonu mais man bi may dem daf ma ni woon benn meer ngay nekkal fu mu jëm nga ànd ak moom léegi nag man bi ma demee ba àgg ba si dëkk ba na si laa doogam gis gis kër gi na mu toll kër gi am na quatre ngandim toilette six mugili six salons deux deux espaces familiales trois grandes cours ak waañ bu ak ngandim mu waañ sept heures du matin laa yeew balay meer bi di yeew dina fekk ma yeew ba defar kër gi yëpp waaye loolu yëpp maire bi gisu ko affaire bi metti woon trop metti woon trop si man fi mu nekk nii sama yaram bi yëpp ay metti sama dënn bi dafa mel ni lu ñu ubbi sama côté yi yëpp ay metti sama yaram bi yëpp ay metti te man loolu tàmmuma ko woon liggéey Sénégal parce que man waa ji dafa ma ne woon boo demee dangay dangay nekk ak moom fu mu dem nga ànd ak moom xam nga léegi maire bi nag daf ma nëbboon jikkoom commencement bi léegi te maire bi buy dem boo àndeek moom yow moom ñi mu seeti yow ci waañ ba ngay toog di leen liggéeyal di leen raxasal di leen fompal te man loolu man munu ko parce que li ma doon daj si kër gi métti woon na métti boo xam ne man munu woon loolu moo tax maire bi su ma nee bañ du dem parce que loolu dafa metti ni ngay daj déjà si kër gi ba pare nga bëgg dem liggéeyal tamit seen mbokk yi loolu c'était impossible munu ma ko woon. problème bi si koor gi la commencé problème bi si koor gi la commencé parce que dafa bëggoon may yeew dafa bëggoon du ma nelaw ndax ñoom nee nañ ñoom kullu beeti maa fi maa fi silib ma ni ko ndax maman. man sakala sakala silib man sakala silib mu ni ma ah mu ni ko waa mu ni ma waaye yow da nga war di jóg di raxas ndab yi si xaaju guddi gi de waaw ndax waroon nelaw mu ni ko nag man dama war nelaw ndax man dama sonn mais nag da daan wax rek di bàyyi di wax di bàyyi di wax di bàyyi di wax di bàyyi ba un jour doomu paa bi ñëw indaale si doomam ñëw di ma saaga di ma maltraité si biir kër gi mère bi di xuloog man dem na sax ba ni day wàññi lim may fay xam nga. mais mi ngi normal. duñ la fay normal. sa salaire ñaata euh, parce que paa bi 800 réal la ma doon fay te man sax après sax si rendre compte ni moom Souleymane waajoo da siy am si xaalis bi léegi te 800 réal yooyu paa bi par 2 mois la la koy fay su la ko fayee par 2 mois daf la ko bu ñëwee Sénégal ñu convertir day nekk 240 000 te xam nga man dem naa ba xool xam ne deux 240 000 yooyu sama jàmm yaram jaru ko te affaire bi metti woon na da ngay yeewu di raxas ndab. di raxas ndab bay tëdd di raxas ndab yeewaat di raxas ndab xam nga kon loolu tamit dafa metti loolu tamit dafa metti kon yow loolu traumatisme boobu déjà daf la jàpp. dama daan jooy dama daan toog jooy te xam nga mag lu génne rangooñam rek booba booba metti na ko lu génne rangooñam rek booba metti na ko. léegi après lan moo lan moo déclenché ba nga tey ñëw Sénégal fan nga jaar ak yan solution nga ut ba egsi fii tey. waaw parce que man bi ma bi doom paa bi ñëwee di ma saaga. man wax naa ko sama yaay parce que man par Facebook laa doon déggante moom te wax naa ko sama sœur bi nekk foofu noonu léegi maire bi di xuloog man di xuloog man du fa nekk di xuloog moom wala doom paa bi du nekk di saaganteek moom ndax dama doon bañ comme kaaw Mbayang Diop bi ma doon dégg si internet bi bi ma dégg bi fa am noonu man dama doon bañ man loolu dal ma fa parce que dëkk boobu boo fa reyee ni dañ lay rey boo fa sàccee dañuy dagg sa loxo. léegi nag kan moo la dimbale ba nga ba nga ñëw tey Sénégal. Euh, man si face à travers Facebook sax si laa xamanteeg Boubacar Seye Horizon Sans frontière man wax dëgg yàlla man moom rek laa fa doon gis mu mu ma doon dëfal mu def si liggéey bu rafet contacter journalistes yi ak yéen tamit liggéey bu rafet bu baax bi ngeen si def xam nga ba tax sama patron tiit bàyyi ma ma ñibbisi parce que gorom bi aussi tamit jëkkëru doomam daf ma daf ma estimé woon. moom moo ma moom moo ma génne dëkk te ñoom tant que génnewul la dëkk bi yow doo génn doo mën a génn parce que ñoom dañuy téye sa sa sa sa passeport téye sa ikama doo mën a génn ba tax na sama patron tiit bàyyi ma ma ñëw. et puis yow sa genre yu mel ni yow comme sénégalais yi fa nekk am na ñoo fa daan gis ak war nga mën a xayma ñaata ngeen foofu. man na war mënuma ko xayma parce que foofu doo xam lu fa xew parce que doo génn c'est comme dans un prison avec travaux forcés. yow ban man maa ngi woon albaxa. albaxa foofu du doo xam doo doo xam lu fa xew parce que man waa ji sax bi may dem daf ma ne woon yow ak sa sœur bi yéenay janoo yéenay janoo fi ngeen nekk ndekete li moo wax amul maak sama sœur bi soroyantoo nañ lu mat un kilomètre man si sama service de localisation laa ko mujj gisee. léegi tey waa ji la yóbbu foofu Souleymane boobu tey lan nga bëgg ci moom dang doo ko topp ci yoon wala lan. man dama ko xaw yërëm sax franchement. ndax moom. ah. Mm-hmm. yow nee nga si sa salaire sax moom daf si doon am te lim la waxoon yëpp amul te yow nga bëgg koo yërëm lan moo tax. xaw ma xëy na yàlla moom ma bind noonu xol bi xol bi xaw oyof. Mm-hmm. léegi fi ñu toll nii lii nii bu fekkoon dañ la waxaatoon nga ñëwaat dem Arabie Saoudite naka ngay def. yaa man de demuma. de bu ma de. te nag maa ngi conseil sama morom jigéen ñëpp bu ñu dem. ndax dund naa fa lu ma mësul dund sama àdduna gis naa fa lu ma mësul gis naari bon nañu soxor nañu te boo génnee di daw ñoom ñooy woo police boole la bu ko defee police jàpp la. tey bi ñuy ñëw da nga demoon hôpital bi nga demee hôpital lan lañ la wax moo nekk sa yaram. sama yaram bi daal sama yaram bi moom lépp jagadi na sama yaram yëpp jagadi na te ordonnance bi ma docteur bi bindal aw ma sax lu ma ko jëndee parce que paa bi nanguwuma fay te man dama wàcc si Sénégal yoruma yoruma xaalis. parce que paa bi nanguwuma fay daw na kër ga raar na fa nanguwuma fay. léegi lan lan ngay tëjee. Euh, xanaa xanaa di wax ni ambassade bi nekk foofu noonu ñoom dañ ñu war di dimbali parce que ñoom man sama yaay bi mu leen wooyee pour ñu dimbali wu ma ñibbisi dimbali ma faale wuñu ma woo woo kii wuñu wo woote parce que dañ ma ni fi nga nekk dafa sore. même foofu fi ma nekk noonu bu soree tamit solution je pense que war na am xam nga ba pare di wax di ñaax ni nañ ma nañ ma wutal si lu ma jàpp parce que comme que dem naa ba foofu noonu foofu metti na neexul ñibbisi naa te bàyyi naa sama yaay ma neexul bàyyi sama doom bu ndaw franchement nañ ma wutal si lu ma que lu coono googu ma daj foofu noonu li ma fa doon sonne noonu ma ñëw fii sonn ko sama réew man moom moom ak gënal parce que fa boo fa reyee la boo fa sàccee ñu dagg sa loxo. yow yan nga am liggéey nga bëgg. man kay lu lu ma man man lu ma am baal man nañ ma jàppale rek wutal ma wutal ma fu ma teg parce que man déjà jàng naa dégg naa francais dégg naa tuuti anglais def naa formation en secrétariat liggéey naa dans différentes sociétés xam nga ma toog fii Sénégal métti Sénégal dëgër te sama sœur bi ma ko contacté ni ko Anta nañ ñibbi dafa bañ ni ma Sénégal Sénégal bu ma fa ñëwee li may am fii duma ko fa am. donc moom elle est dans de bonnes conditions. non là elle n'est moom mét moom mi ngi fay vivre moom itamit lu raw li ma doon vivre. barke alxuraan billaahi. ah mais moom lu tax ñëwul ko. moom nee na elle préfère souffrir pour avoir de l'argent te man nag man maanaam moom nag yemuñu man sama yaram neexul. moo tax man ma daw ñibbisi mais man daal damay def di remercier Boubacar Seye Horizon Sans Frontières remercier waa Sénégal parce que man gis naa liggéey bu rafet bi ñu si def. ba tax man yàlla jox ma sama bakkan bi ma ñibbisi même bu ma amul dara sax yàlla jox na ma sama bakkan bi ba ñibbisi naa si jàmm.